assalamu alaikum, assalamu alaikum wa département de Bambey euh, solo dajé tay bi euh, euh, débat d'orientation budgétaire bi parce que dañuy jëm ci voter suñu budget 2023 bi ñu won conseil tay nak ñu ñëw ci ñu toog jéem a waxtaan jox leen kàddu bi nga xamee ne euh, joxe nañ information yi fi jot na jàll fan yi yëpp ci tukki bu ñu defoon euh, au niveau de la France euh, ci information bi la bokk àndan ci ak ñeenti maire ak man muy juróom ci département Bambey muy maireu Baba Garage maireu Ngoy maireu Gawane

vraiment mu recevoir ñu consul bi wax ak ñun teg ñu ci ay piste aussi jàppale ñu euh, ñu koy sant di ko gërëm bi yooyu jógee aussi wax naan nañ ci nettoyage boo xam euh, journée de nettoyage yoo xam ne dañ ko ànd nag suñu partenaire euh, muy la mine garde bisik avec euh, le directeur général monsieur Manarba donc du 26 au 30 tey ci ngoon la ñu war a jeexal juróomi fan ñuy sillonné commune bi pour euh, euh, nettoyer dépotoir sauvage yi ak euh, kàmb yi pour sën yeeg yooyu pour làmbaay gën a am xar kanam bu gën a jekk daal ñuy gërëm partenaire boobu bañ fa jógee nag ñu soobu ci li ñu taxan ndaje muy Euh, débat d'orientation budgétaire bi nga xamné jox nañ cadeau, bi ñu waxee accès yi euh, ci santé bi ci éducation bi ak euh, agriculture ak yépp daal ak si nga xam ne jàpp nañ ne dina mën a bokk ci budget di développer commune bi ñu waxtaan ci population yi joxe euh, xalaat ñu tontu leen après noter nga xam ne fii ak weer bala ñoo tasewaat dinañ ko boole ci budget bi buñ ko ci boolee nag euh, euh, soumettraat ko mm, conseil bi pour ñu mën a voter budget 2023 bi loolu daal moo doon solo euh, waxtaan wi tey jërë ngeen jëf